Euh, donc dama bëggoon wax ci affaire euh, viol bi affaire Sidy Seck bi ak tamit góor yi Sénégal nañ taxawee par rapport ak li ñuy wax viol damay gis jigéen ñu bëri moom et puis loolu du secret que la plupart ñoo xam ne dañu engagé wu ay mouvement wala ay nit ñoo xam ne boobu dañuy tuddee seen bopp ay féministe euh, chaque fois dañuy dañuy wax ne ñoom amuñu soutien par rapport ak góor yi nga xam ne en général. dañu nekk di mener des combats civiques des combats yoo xam ne nii euh, pour la société la des combats politiques yooyu quoi léegi ku si nekk tu es libre yow ma def combat bi nga xam ne nii daf la intéressé euh, kenn duñ ko forcer mu ne par force da ngay wax si combat bi ñu tous yi nga xam ne nii ñu ngi si ay combat des fois da nga bëgg peut-être soutien mais ku lay soutenir day fekk moom bëgg ko n'est-ce pas donc des aussi. kaa euh, mën na sensible wala cas mën na nekk noo xam ne yow doo ci am information doo tëb tëb rek nga ne da ngay soutenir comme des fois ni ñu koy bëggee mooy de facto bu ñu jiiñee nit rek da nga war a soutenir la victime non supposé victime la présumé innocent la jusqu'à ce que mu am ay preuves yoo xam ne preuve yu leer la et preuve laaj ma sax mu nekk ay preuves yoo xam ne ay preuve euh, yu làqu la mais ay preuves yu évident yoo xam ne nii vraiment ñëpp boo xalaatee da nga xam ne kii am na présomption boo xam ni fort que nga coupable la quoi nga doog a mën a engagé ci dara euh, viol man je n'étais pas d'accord pour criminalisation du viol ça c'est mon c'est mon opinion pour pourquoi j'étais pas d'accord mooy d'abord dëkk mais comme rek euh, ñu ne nañ def euh, peine de mort je suis pas d'accord pourquoi parce que d'abord il faut que dëkk boobu justice bi mu nekk justice boo xam ne xaajalewul cest dire dafay gumba xoolul kii def am wala amul kii baro la wala kii kii euh, borom tour la wala borom daraja la bu nekkee ne loolu amul di nga gis ay innocent yu bëri dañ leen rey et pourtant parce que dañ nekk juste parce que amul amul justice donc il faut que d'abord justice bi mu wane ne moom jéngul te cas bi ñu nar a dem dañuy wane justice bi dafa jéng euh, loolu moom mooy tax cas yi avant que ñuy condamner nit il faut que. mu am tous les moyens yoo xam ne nii dañ koy mettre dans les enquêtes pour prouver que nag kii ñu jiiñ muy rey walla muy euh, walla muy viol kooku en fait sans aucun doute sans l'ombre d'un doute il coupable ñu doo ko condamné mu am ay preuves matérielles donc preuves matérielles yu si bëri nag au Sénégal c'est difficile que nit ñi des fois jiiñ walla ñu ne euh, duñu am preuve yoo xam ne mu matériel la pour exécuter la peine pourquoi parce que tey boo xoolee. Euh, bu ñu jëlee ñaar ñoo xam ne nii ay majeur lañ c'est-à-dire am nañu euh, euh, seen seen responsabilité pénale donc ne engagé par quelque amul ko ko engagé quoi wala amul ko xam ne moo ko jox mu nekk tuteur donc ñoom ils sont responsables donc ñooñu par exemple bu ñu nekkee si situation boo xam ne kenn dafa jiiñ moroomam de facto effectivement kii dafa nekk présumé coupable mais aussi kii dafa nekk présumé innocent tu vois donc comment est-ce que lañ koy def mooy ki nga xam ne moom moo accusé mooy indi assez de preuves matérielles euh, ñun donc gynécologue mais bu mu nekk juste wax contre wax et aussi bu ñu sentir ne derrière dafa am benn benn benn benn cas dañuy jël kaaw euh, Tariq Ramadan boo xam ne nii dernièrement on a vu ñoo xam ne dañ ko accusé et puis ils sont rétractés ñu jëlal aussi cas boo xam ne mooy cas Juan Branco peut-être ñu bëri xam ñu ko Juan Branco Euh, ñu ngi koy bindee J U A N B R A N C O donc xale xale la mais dafa nekk koo xam ne nii ci affaire engagement France dafa sonal gouvernement France bu baax a baax a baax jamono jamono yee passé kenn accusé ko de viol alors que moom li mu expliqué c'était boo xam ne nii bon nit ku mu dajal la et ñu ñu ñu ñu sympathiser xam nga le lendemain après bu ñu passé à la la fille est revenue pour l'accuser de viol maintenant fi mu toll nii on l'a libéré parce que. preuve concordante yi que ne bon c'était pas un viol donc de facto rek bu ñu demee mu am benn lu ñu mën a lu ñu mën a njort ne ki ñu accusé peut-être am na leneen loo xam si nekk dañuy def nag ñu xool preuve ki nga xam ne moo accusé muy teg ci portable bi donc c'est différent bu ñu euh, jaxase affaire yi par rapport ak cas bi bi moom laay wax comme kaawu wu Diop nit koo xam ne dafa majeur la. responsable pénalement ak koo xam ne mineur la mineur du am consentement mooy tey xale bu nekkee mineur la de facto boo leen amee conjonction sexuelle mooy da ngeen a euh, seq dara viol la parce que amul moom moom amul pour wax ak pour wax donc bii cas cas boobu la xale bu jigéen bi quinze ans la am d'après ñoom li ñu wax 15 ans alors ku góor ki 19 la ku góor kooku noonu majeur la dañ koy jàpp comme maam as boo xam ne nii. ay atam man na xelam man na léppam man donc il est responsable pénalement du papa mooy responsable du keneen mooy responsable moom mooy responsable donc dès l'instant que mu am accusation mu am aussi ay preuves parce que preuve yi mooy au-delà même de euh, ñu ne dafa violé dégg naa ne dafa filmer donc filmer boobu est-ce que existe na xaw ma si dara mais bu nekkee dafa existe dafa am ay peines yu bëri yoo xam ne nii yu tegu ci ndoddam parce que non seulement filmer na intimité euh, kii yoom nu mu tuddati euh, divulgué na ay données personnelles am mm, problème de mœurs xam nga donc division image contraire oo bonnes mœurs ay ay ay ay cas yu bëri la la tagle et puis si gën a grave moom mooy viol parce que détournement de mineur la ba pare viol ko donc viol bu nekkee dëgg la dëgg image yi am na donc image ce sont des preuves qui sont irréfutables bu image yi amee ça veut que am na conjonction sexuelle mais majeur bi warul sax fanaan këram lii bu nekkee dëgg la Sidy Seck moom tey warul fanaan seen kër quel soit alpha dañ ko war a garder à vue parce que am na connexion sexuelle entre un majeur et un mineur maintenant duñu ne comme non ba léegi 19 ans xale la non non non du xale mag la xam na lu muy def on regarde la loi on regarde pas ne non l'islam la xar xale ba ba léegi xale la non papaam ak yaayam ak yeneen mën nañu jël jàpp xale la mais majeur la au yeux de la loi et la loi doit euh, sa se se comment dirais-je parce que bu nekkoon koo xam ne nii la ci ban yëgal dëkk wala doxandéem la mu seex ko ak keneen policier duñ sax xaar mandat de dépôt duñ sax xaar euh, mandat de perquisition saa waay ci saa si lañuy dem bu ñu fa fekkee kër gi boo moom sax paa bi dinañ ko dóor mère bi dinañ ko dóor dañuy jàpp xale bi wañu loxoom tu vois boo moytuwul lañ la garder plus de soixante-douze heures wala sax quatre-vingt-seize ñu garder la ko à door la mandat de dépôt tu xaar deux ans trois ans doog la doog la doog la juger donc pourquoi est-ce que bu nekk koo xam ne nii euh, entre guillemets papam dafa am euh, benn relationnel par rapport ak politique ak yooyu noonu ba léegi dégguñu ne police yëngu na procureur yëngu na kenn yëngu na loolu c'est inadmissible tey réseaux sociaux yi moom mooy nekk. ñu loo xam ne nii li li li li euh, assemblée nationale waroon def ressources ñoo koy def li yenn kii waroon def ressources yi ñoo ko def parce que tey mën loo mettre sous silence que ne que lii amul donc comme tellement léegi le truc est exposé ils sont obligés d'en parler maintenant man la presse aujourd'hui daanaka gisuma si peut-être que mention boobu am na peut-être ñu ko ñu ko ñu ko def mais euh, que Yérim moom bu ñu mélangé Yérim dafa def acte boo xam ne moom moo responsable maintenant ñun suñu loi ak suñu système de euh, judiciaire daf nañ def telle sorte que bàyyi nañ ko ne il la pris sa date moom la maintenant lii doomam la du ma attaqué Yérim si dara peut-être que moom bu nekkoon sagoon doomam def loolu mais doomam bu nekkee ne def na ko doomam moo ko def donc après bu amoon waroon am conférence de presse. doomam boobu moo war def conférence de presse moom mu ñëwee mu toog déglu doom ji mu wax te sax y' a pas à dire non lu muy def conférence de presse doom doom ji amul donc jusqu'à présent quoi moom mu libre et ñu ne xale boobu ak yaay ji jóge na fi fi fi ñu dëkk tey bi ñu gisee koo xam ne nii jiñ nañ ko viol on a mis de l'État pour dem jëli ko. pour pour pour euh, procureur juge des comment dirais-je doyen des juges presse bi ku nekk di si wax juste pour charger nit kooku mais comment est-ce se fait que sénégalais boobu noonu ak beneen ki nga xam ne moom mooy je peux le dire Sonko ak ki nga xam ne Sidy Seck la mais ñoo ñëpp ay majeurs lañ et ils sont responsablement pénal de tel de leur acte fait que mu am mu am kii boobu et c'est la question qu'on devrait se poser mais pas dire que euh, peut-être góor fii dafa am culture non pour man. Sénégal on en parle yaa y de choses yoo xam ne nii sa arrive dans famille mais comme dans toutes les sociétés mais ku viole nit pour man loolu faiblesse la et góor yi nga xam ne nii ay góor la ñuy ñuy yar kenn du forcer nit mu def rapport xam nga ak ak ak ak yow bu nekkee ne gentleman nga bu nekkee ne góor nga bu nekkee ne non loolu loolu c'est juste que faiblesse la pour ñenn ñi faiblesse la pour ñenn ñi maladie la pour ñenn ñi whatever Mais maintenant, quand, quand, quand, quand c'est fait et les, les, les, les, preuves sont aussi accablantes, l'an le, procureur de Khar, l'an le bu nekk Mbour di xaar l'an le euh, ñep ñi nga ni ñi ngi ci ci ci l'endroit politique ak bo ñuy xaar pour ñu exposer loolu lan la journaliste yi di xaar pour exposer ñu les faits pour que lii nii que ça n'arrive plus parce que booy bi nii bu rëccee dem par n'importe quel moyen euh, kenn jugé wu ko mais sawaay kuñ fi jiñee ci dara da ngay taxaw xeex ak nit ñi da ngay taxaw xeex ak policier bu nekkee dafay jël si sa doom non pourquoi est-ce que euh, doomu baadoole rek ñu nekk rëbës pourquoi doo fa gis kenn koo xam ne nii doomu doomu doomu doomu ku parce que da non doomu riche doomu de kii et puis leen day dem da leen rob benn genre benn genre euh, jalousie non du jalousie quand il y a l'injustice non peace no justice no peace dafay nekk loo xam ne nii si xool lay nekk am na koo xam ne ñu ngi ko tëj boobu ba léegi kenn kenn kenn jugé wu ko te pourtant si ay présomption yu léger lañ ko jàppee donc mënuñu jàpp nag koo xam ne nii mais boobu ba léegi kenn gënul démentir li ñu wax boobu ba léegi mais lekkool est responsable de un parce que bàyyi na ko muy jàng ci euh, environnement boo xam ni boobu ba léegi il e entre guillemets prouvé que moom moo def li ñu wax à Mbour le commissariat lan moo nekk démarche am par rapport ak li am donc commissariat Mbour wala procureur bu Thiès moom moo waroon def conférence de presse par rapport ak scandale bi nga xam ne indi na ko lii c'est un scandale c'est un scandale et c'est dommage que ça arrive au Sénégal et c'est dommage que ça ça arrive et ça encore sur benn benn Seyni Seck boo xam ne nii kenn yéene wu ko ko mais c'est arrivé maintenant c'est le combat pour man comme ni ko sama benn rakk waxee Diagne Bac Diagne ñu juum si combat bi c'est pas Cheikh Yérim Seck non Cheikh Yérim nee nañ jàpp nañ ko kii nañ ko quelque soit nu ko justice traité moom la mais bii Sidy Seck la boo xam ne moom il est responsable pénalement moom moo war a génn wax te sax amul pour génn wax bu ko neexee nag comme mën nañ may yenn kii ñu génn wax na génn wax mais papaam nekk fa woon moom ak xale bu jigéen bi lan la mën a wax ko rek que seetal doomam wax ko ne ñi dañoo soxor wala que ñi kii moo ko def wala ñii responsable la peut-être que ay politiciens ñoo la si ginnaaw ak noonu non ñun ce qu'on mooy si la vidéo existe si la vidéo existe mu nekk une preuve irréfutable que ne xale bu góor boobu am na injonction sexuelle ak xale bu jigéen bu am quinze ans c'est une preuve non négociable que ne que c'est parce que xale bu am 15 ans kooku mënul am euh, euh, mënul wax waaw. oser la justice mënul wax waaw donc amul négocier moo ko def wala am na de forte présomption ko moo ko def warul fanaan si këram loolu nag y' a pas à négocier et puis di di di di di di euh, euh, jox suñu soutien xale bu jigéen bi pare wax aussi ne que ñun vraiment benn bépp góor bu def viol mënuñu ànd ak moom. mënuñu ànd ak moom que non affaire de guerrier la non non affaire de guerrier viol mu mënul euh, violeur mënul làqu si affaire de guerrier parce que jigéen ki peut-être faiblesse la xam nga nga jàpp ko jigéen amul doole contrainte ko nga am moom injonction sexuelle donc encore une fois cas bi c'est un cas particulier boo xam ne mën na dimbale ñu bëree bëree bëri pour que dans l'avenir ñu xam ne kenn mbarul mucc ci nga def loo xam ne lu la weng la ñu jàpp la comme am na preuve lu ñu jàppee ay ñoom Ameth Thiou ak yooyu noonu dañ leen a filmer façon publique donc enquêteurs yi ñoom mën nañ xam ndax vidéo bi ça existe wala euh, gynécologue bi kii na wala wala booy bi moom avoué na bon après ku jigéen ki ndax lii la donc ñi wax loolu lépp même ku jigéen kooku mënul wax waaw boo amee sa doom boo am 15 ans wala 13 ans wala 10 ans faut pas dire que na ko moom moo ko def parce que moo dem seeti booy bi wala moom moo ko def non non on n'avait pas à la contraindre quoi que ce soit même ay bu nekkee copain copine la peut que jamono moom changé mais même boo amee copine 17 ans boo defee ak moom relation sexuelle te nag ni loo bi dina tëddoo moom toute pénétration la par surprise loolu nag moom bu nekkee am na entre moom ak booy bi saa yi Sidy Seck góor yàlla la nañ ko jàpp tëj ko Thiès en garde vue enquête ko bu nekkee ne si. Euh, euh, audition principale yi première édition yi am nañ lu leer que moom def na ko am na conviction automatiquement nañ ko nekk nañ ko yóbbu kii euh, nañ ko yóbbu maanaam dépôt et que aussi def na tout quel quel que soit fi ñuy jaar gouvernement Sénégal bu ñu bàyyee lii mu am xam leen ne ay ay frustration yu amaat la encore bu beneen affaire amatee tous ces gens yi nga xam ne nii dañ dañuy dañuy am lu leen metti dañuy jaar fekk ko parce que dañoo xam ne. justice bi nekkul justice boo xam ne ni dafa nekk pour sénégalais dafa nekk pour ñenn ñi ñenn ñi dañ jàpp na ñoom dañ nekk au-dessus de de de de la pyramide et ñi nekk ci suuf yëpp ñoom mën nañ def lu leen neex te ñeent lu leen dal que la fait pour les pauvres loolu noonu que les lois sont faites pour les pauvres loolu noonu on a l'impression que loolu moo am Sénégal te loolu noonu dafay dafay xupp encore yokku sentiment de de de de de de colère bi de de ras le bi bi nit ñi am. parce que nit ñi ñu ngi jël seeni doom di leen tëj toog ay dix ans bu ñu leen cinq ans kenn du leen jugé pour jàmba wala pour c'est pas benn xar wala pour benn ginaar wala pour kii nit ñi ay nit dee nañ si wala ay tissu ay nit deenañ si nit ay nit dugg si kër xam nga comme ay am Seck Ndiaye dóor leen moom te tissu rek la woon Pape Sarr koo xam ne nii xar rek la woon ñu jàpp ko kii mu lakk euh, affaire euh, élémentaire yi pour de des trucs d'argent même ay wax sax xam nga ay wax rek ñu jàpp la la. xam nga nga dee fa plusieurs plusieurs actes yoo xam ne nii les policiers se montrent tellement tellement mais bu teree Faye juste benn visite ñoo ñëw ne la fii la bul bul bu dem ñu woo gendarmerie gendarmerie ñëw sur le coup ñu jàpp waa ji yóbbu ko ba waa ji léegi di waa jooju boobu noonu di présenter ses ses excuses alors bu nekkee ne maintenant day tudd yoo xam ne aussi flagrant aussi grave pour la euh, pour viol xam nga ñu toog di xaar lan la ñuy xaar lii moom du jàll comme ni gars yi waxee saanara pasara pa merci